asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki alquran di ab jàngalekatub alquran wala jàngkatub alquran waaye bokki jullit yi nga xam ne ñoo senq seq diine lislaam ji ñoo ngi am mbégte toog fii ci kër sëriñ mo Mouhamadul Xabbaan ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal mu ànd ak waa rabitatul quraaniya ci njiitul Cheikh Mouhamadul Basir moom sëriñ Abibu mu feggoo ak sëriñ Ibrahima si ak sëriñ Xaali Jaxate ak ñi ñu ko seqal dend ak waa daayira muxadamatul xidma bi nga xam ne sëriñ Afiya Buso moo ko jiite ñu jot ndigal nag ci sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaxaa ndigal loo xam ne mi ngi jëm ci dogalub yàlla bii nga xam ne wàcc na ci kaw suuf te wàcc ci réewum Sénégal wàcc ci suñuy bokk mu di daje googu nga xam ne ñaari oto yi daje nañ ko ci yoonu Tamba wi ba ay bakkan wadd ca ay nit gaañu ca loolu nag sëriñ Mouhamadul Montaxa xam ne lu bàyyi koo fi yàlla la mu wóor ko ne dara mënu ci dara lu weesu tuub delluwaat ci yàlla ak ñaanal ña dem suñ borom jéggal leen ña ca des suñ borom delloo aat leen ci seen sago loo moo tax mu jox ko ndigal nag ci njàngum alxuraan moom santaane ci réew mépp ci ku koy déglu ñu fab kàddu gi jox ko sëriñ Mouhamadul Xabbaan mu jottali ko bokki jullit yëpp bokki taalibe yi. bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah. bokki jullit yi. fu waay mën a nekk. ci biir Sénégal ak ci biti senegal rawatina nag bokki taalibe murid yi. Muntaxa. Muhammadul Cheikh Mouhamadul Muntaxa. mo len di nuyu. di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci dogalub sunu borom bi wacc ci dogalub sunu borom ci bokki jullit yooyu. muy dogal bo xamne sunu borom dako dogal. ta ab dogalam nak kenn munu ci dara. waye sañesna muñ. ak ñaan yalla nak sëriñ bi wax ne. sëriñ bi wax ne. mi ngi mi ngi ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo ci am ay bokk. mi ngi masawu ñi nga xam ne ñoo ci am ay bokk. di ñaanal ci di ci ñaanal nag ña ca bàyyi ko. sunu borom defal leen ak njëgal. teg loxo nag ci seenu njaboot. te ña ko am. wala seen wayjur. wala seen wayjur. ñu ngi sant ñëpp. ñu ngir bu subaa. ngir bu subaa. ku di ab taalibe nag. ku di ab taalibe nag. sëriñ baa ngi lay digal. te nga yor daara. te nga yor daara. wala nga mën a jàngulu. wala nga mën a jàngulu. bu dee bokki jullit yi. bu dee bokki jullit yi. ñu ngi ñoom. ñu ngi koy sàkku ci ñoom. ci noonu ko waxee. ci noonu ko sëriñ bi waxee. ñun ñëpp ñu ànd. ñun ñëpp ñu ànd. fu daara nekk fu daara nekk. ñu doxal fa loola. ñu doxal fa loola. ñaan yàlla jàmm am ci. ñaan yàlla ñu la ca des jàmm yàlla def ko ca. ña ca rëcc. ña ca rëcc. leen ak wér. borom defal leen ak wér. ak mucc. lii nag day boo xam ne. lii nag day ab dogal boo xam ne. sëriñ bi wax na ne. sëriñ bi wax na ne. ku mu wàcc ci yow rek. ku mu borom mi ko dogal. suñu borom mi ko dogal. moo ko moo koy dogal. moo koy dogal. la ca gën nag kon. la ca gën mooy ak muñ. ko. waaye nag lu tiis la. waaye nag lu tiis la. ndax boo dee xool ñi ca bàyyi ñëpp. ndax boo dee xool kat la ca bàyyi ko lépp. dañuy ñu yaakaaru. ndaw. di ay ndaw. waaye nag fan jëm. waaye fan jëm. ñaan suñu borom mu gënal fi ñu. nanu ñaan rek suñu borom mu gënal leen fi ñu bàyyi ko. lépp lu suñu borom def ndax lépp lu suñu borom def. ak ak ak muñ. ak muñ. akuk cant akuk cant. ni ko Serigne Touba di waxee. ni ko Serigne Touba di waxee. sabru ak sukkur rek moo ci war. sabru ak sukkur rek kon ñu ngi sant ñëpp. ci ci leen ñu am farlu ci. ci ñu am farlu nag. fépp fu jàkka nekk. fépp fu jàkka bu ñu mënee wàcc kaamil. bu ñu mënee wàcc ay kaamil. bu dee daara noonu. li ci des nag da koy bàyyee ak bokki taalib yi. ndax fii ñu toog nii. ndax waa rabita bi. ak mun a samaat yëpp daal. ak euh, bi. kuréel yëpp daal ñu ngi nii waaye dañoo aju ci sëriñ bi. ci ndigalu sëriñ bi rek. kon nag fu fi mbooloo mën ne. na xam ne na xam ne daal lii mooy ndigal li. ñu ngi ñaan nag lii gëj fi. fi. di di dànkaafu tam sëfoor si. di dànkaafu nag sëfoor si. ñuy ñuy bàyyi xel ci. ñuy bàyyi xel ci. loo gis dogalub suñ borom la. loo gis dogalub suñu boroom la. waaye nag ak dal dana tax mu mu waaye nag ak dal dana tax dogal ba woyof. ñu ngi ñaan suñ borom musal leen. musal leen. musal oto yi. musal oto yi. ndax mënee suta ñàkk a dugg ci oto ndax mënee suta ñàkk a dugg ci oto waaye nag buñ ciy dugg waaye nag bu ciy dugg ñu xam ñu ciy duggee ñu xam ñu ciy duggee ñee dawal itam ñee dawal itam xam nañ ci ñuy dawale xam ni ñoom it nañuy dawale am na ku baax am na ku baax ku waxoon ku waxoon ne dawal bi gën a eh, ñoŋ ci dawal yi. dawal bi nga xam ne moo gën a ñoŋ ci dawal yi. bu nee bu nee tëcc nga ne teg. bu nee tëcc nga ne teg. bu nee bu ne yow. bu nee yang nag nga ne yor. ku koy def rek ku koy def rek. suñ suñ borom mën nañoo musal ci lépp. ñoo ngi ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha. ñoo ngi ñaanalaat Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha. ci taxawaayam. ci taxawaayam. ci lépp lu jóg. ci lépp lu jóg. dana ca taxawal nam ca war a taxawee. dana ca taxaw nam ca war a taxawee. ndax lii bi mu ko yëgee ba léegi. ndax lii ba mu ko yëgee ba léegi. daa taxaw temm ci nañ leen daal di yëgal ñëpp. daa daal di taxaw temm ci ne nañ yëgal ñëpp. ñaan suñu borom yemale fi bi bi bi nattu. ñaan suñu borom yemal yemale fi nattu bii. ku am ku mel noonu nag. ku am ku mel noonu nag. na nga koy ñaanal yàlla. na nga koy ñaanal yàlla. suñu borom bàyyi ko fi yàggal ko fi. suñu borom yàggal ko fi bàyyi bàyyi ñu ko fi. ak mboolem njabootam yi mu jaboote. ak mboolem nag njabootam yi mu jaboote yëpp. di ay rakk. di ay seex. di ay bokki taalibe. di ay bokki taalibe ngi sant ñu ngi sant ñëpp. ñu ngi sant ñëpp. waaw sëñ Basiirou sax moo waroon a wax. sëriñ Basiirou mii nee na moom la joxoon ndigal li mu wax. waaye waaye ñëpp dañu maa jox kàddu. waaye moom ñëpp dañ ko joxaat kàddu gi. ndax li li ma sëriñ bi sant naa wax. ndax li ko sëriñ bi sant na la wax. ku ci waxoon nag mu doy. waaye ku ci waxoon ñoom mu doy. jërëjëf kon ndigal laa ngi noonu sëriñ bi wax ne kon bu subaa ci altine ci altine ji na ko ñëpp xëyee muy bis boo xam ne bisum ñaan la di ñaanal ñu dawlu ji sun borom jéggal leen te yërëm leen di tuubaat it delluwaat ci sun borom ñaan dogal bii géej fi di delloowaat it nit ñi ci yàlla di wax ne mbooleem ñi nga xamante ne bi ñoo ca ñàkk nañ ko muñ muñuy wu rafet te delloo lépp ci dogalub yàlla xam ne yàllaa ko dogal te dara mënut am te yàlla dogalu ko. kon noonu rek la demee ñun ñëpp ñu maase tàllalaat suñu loxo sëriñ bi ñaan ñu ñaan sun borom dogal bii géej ci réew mi lool. te mbooleem ku ci bàyyi ko sun borom yóbbu la àjjana ña nekk ci lali hôpital yi sun borom wéral leen te loolu waat leen ci seen sago wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.